parrainage am na ci àddina bi àddina bi ñu oui France am na fa te juróomi téeméeri député sénateur ou euh, ou conseil municipal rek mais xam nga diggante loolu ak li Macky def mel na yàlla ak yàlla te parrainage bi boo ko wéyee boo wéyee Macky dafa liggéey dafa dugal loxoom ci fichier électoral naka la ci dugal loxoom <coughs> au lieu ñu mu am benn fichier électoral ñaari fichier électoral la benn bi kay mi ngi nii mooy fichier bi nga xam kenn amul loo ciy wax mais mu am beneen fichier bu mu làq mu fichier numéro 2 ci boobu nag ci lay dugal dugal ñii dee dugal ñii tukki dugal lu ko neex mu dugal te foofu ci la ñuy calculer résultat yi calculer résultat yi calculer